بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 Al alquran ak Serigne Touba mi nga xamni mom lañ ci ligéyel ngir fas ko wutu ci teranga yim dan teral ñi dan jang alquran ligéyel si Serigne Touba mom mi nga xamni mo ñaanon boromum wutu kep ku yëngu si alquran mu teral la ku bëgg nak wutu Serigne bi si teraanga yoyu mbokki jaayante yaa ngi bâtiment plus import export si Touba moki ak si ngeen lépp lu ngeen karo ci karo caro import caro ba gën caro ba nga xamanteni mom moom la ñuy itteewoo si mboolem ay yu ñu importé ba Espagne Italie Chine si dëkk yi gën a mag a mag ñu ràññee leen si wàllub liggéey carreau dama ni mbokk yi bu ngeen ko itteewoo si même réew bâtiment plus import export du ca morom waaw ñoo leen yembal ay caro sol faïence Italie ay grès céramique italien ay faïence espagnol ay sol grès italien 40 sur 40 30 sur 30 60 sur 60 ay grès poli italien 60 sur 60 caro de haut de gamme ay grès italien tout genre faïence venant d'Espagne 25 sur 40 20 sur 30 dama ni am nañu ay produits jóge Inde 25 sur 37 wala yeneen gox si àdduna wërgal këpp ay faïence pour cette cuisine bu ngeen bëggee mu taaru rafet loolu bâtiment plus import export ak sina moo leen yembal ngir seen taaru waañ 25 sur 37 lépp mu ci neex waaye nag mbokk yi découvrir suñu ay lumière am nañu ay contact dernière gamme ay lumière intérieure wala extérieure am nañu ay spot sol escalier seen salon fépp fu ngeen mën a bëgg si biir kër gi bu ngeen lumière ca kaw kaw ca kaw mur ba ak si bâtiment plus import export mi ngi si Touba Daaru Xuduus jàkkaarloog marché bi mag tabatu Touba Daaru Sam si Touba Daaru Xuduus tous mi ngi ci yoonu Daaru Muxti mbokki talibé yi bu ngeen fi accès fekk fi Baye Serigne Lay mo leen yembal lépp luy jumtukaay ngir ngeen jamu yàlla ngir yok xam-xam ngir seeni geussu gëstu damani yemb na fi alquranul karim ulumul quran ulumul hadith amna ay téré xam xam-xam yu wute ay fiqh tawhid tasawuf bu ngeen bëggee tarikh histoire wala géographie lépp fi yemb ay téré xam xam-xam yi mag ñi bind bu ngeen bëggee ay téré version anglais français lépp a ngi fii daal ci maktabatu Touba Daaru Sam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 bokk yi ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa mu daj ma kap bàyyiwu dara lu amal nit njariñ lu nekk mu di ci am payug tey ak gu ëllëg bàyyiwu ca dara moo xam muy loo xam ne ci jëmmi waa ji lay tàmbalee wala jëmmi jaam bi jëmmi jullit bi lay tàmbalee yam ci moom walla muy loo xam ne day tàmbalee ci moom mën a lawaale ba laxasuwaale ñeneen bañ ca tànn tey jii mooy fi sunu borom di waxee ak nun naan yu teey yii munu wërsëgal yu teey kon day mel ne safaanub ya teey boolewu ko ci lim moom mu ne yu teey yii mu leen wërsëgal nangeen ngeen cay jëfandiku ma tànn ca lekk mu ne ya lekk te mu teey dagan yàlla wërsëgal na ko dee leen ca lekk te bu leen ca ëppal bu leen ca dugal mbewte ku ko def am meram mën naa wàcc ci kawam te nee na ku am meram wàcc ci kawam mu sëngéem te dutu siggi mukk ci àdduna كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى مملنا فوف دايما نكو لك يوتاي كو يالا وسغل مودي لك داي ملنا سي موم دونغ لا يام ديريت داي دي wuum wuumaale koo xam ne mëccut sax lu koy taxaw wuum yonent bi sallallahu alayhi ne doomu aadama bu dundoon téeméeri at ci kaw suuf duyu fi lenn ba mu fees mu yëkkati ay loxoom di damu lu yées biiram li muy duy mi fees lépp biire ma ci yées duy biir ba mu feese ci yées dal ne doonte nit ak yi lekk ka naan yépp te du nit waaye nit lañ ko tànn tey daa war a wuute ak ya ca des ya ca des seenug lekk ak seenug naan nun ñoo leen mujj moo ñoo leen di mujj di jariñoo yu ci bari yañ cay war di dem ak di sëf muy dem lekk ak naan moo tax ñuy dem yañ cay yafal di leen jëfandikoo ci yeneen ay tëbëskeeg yu ni mel lekk ak naan ay tax mu mën a sotti fa ñuy fa ñu yàlla wuutaleek ñoom nag nun lekk ak naan taxuñu fee nekk daal daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu demee ba nit mënut a lekk na am lum dëgërloo rek biiram bii nga xam ne li may lekk ci lay dem na ko xaaj ñett ñettu xaaj Ben xaj bi na ca def tuuti ñam na xelam dal rek mu bàyyi ndax xel mooy mooy muy sura ka bañ a suur xaaj ba ca des mu def ca ndox xaaj ba ca def mu bàyyi ko fa di ko noyyee ba ko ab fayla suuf mooy koo xam day xóotal xam-xam di xalaat di dem rek بمو ديغي حديث بوبي تيموي ما ملا ادمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن ادم اكلات يقمن صلبه فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بمكو ديغي دافني مست ديغ واخ دو تنكي ويرغو يرمو يرمو نيت ني واخ دو غاتي نيت امان جارين نوردو daa di giñ ne wallahi innahu la kalaamun hakim su ko nit ñi doon jëfandikoo dana bari wérit yoo xam ne bu fi jóge wuti dana wàññi ko lool te ñam kum dalagut du ko dal ne su ak wéradi baree ba ñu baree bari wér kër yi ñuy fajoo ji dañuy tàmbalee néew ab liggéey waaye fa ñuy jaayee garabe it day tàmbalee féex saa boo demee ñu mën laa jaay amul rang amul dara yonent bi sallallahu alayhi wa teg ca ne ab jullit moom buy lekk ci yu teey yi ko yàlla wër sa wërsëgal day mel ne genn butit la yor goo xam ne gi day gaaw a fees lool nee na ku dul ab jullit nag moom buy lekk day mel ne ku yor juróom-ñaari butit te butit yépp na ngàpp gu ci na bëgg caasol ba mu fees dell dal ne ab jullit moom buy lekk li tax ñu ne genn butit la jàpp ne moom la yore te war na caa noyyi war caa def ndox day def nañ ko ko digale keneen nag moom day seet rek li féeg mi ngi neex ci làmmiñam wala la muy lekk ne fa du bàyyi keneen nag ëpp naa bo ëpp naa doon kooku mooy kafab juróom-ñaari si juróom-ñaari butit teg genn ko ci ne bëgg koo feesal yonent bi sallallahu soññee na ba tàyyi ci di mos ba am loo taxawe yam ca euh, la ca des mu bàyyil ko fa ñeneen misaaloon nañ fi bu yàgg ne kilifa mas naa bokk ak way juróom nee na euh, suñ Modou Bousso Dieng la tudd ñu tegal leen ay ganaar kam ko bokkaloon gi ba mu des genn mu bàyyi ca genn ga ñu coppati ca kaw genn ga ba mel ni kaw ga day bëgg a yéwén nee na ma dugal sama baaraam ca suuf mu ne ma uh, uh, uh, bu ko luxumbut li ci kaw ñi fi nekk la ca suuf ñi fi nekkul loolu mooy iitaar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale mos tuuti bàyyi fa ñekk des dal na lii bu ñu ne la yow lañ ko tibbal yow kenn fexeel ba keneen am ca wàll keneen muy ñaar buñ ne la lii yéen ñaar lañ ko tibbal fexeel ba keneen mën caa am wàll ngeen di ñett suñ ne la yéen ñett la fexe ba kenn am ca wàll muy yéen ñeent ñi mën ngeen caa jëfandiku te du jeex euh, ba ko benn tabib baytari mooy ab vétérinaire di leeral <coughs> boo xam ne ab jullit la daf ne <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wa dafa jiitu xam-xam yi xew legi bu yag kon wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allama allamahu shadidul quwa du miratin fastawa wa huwa bil ufuq al a'la na rabi al yi nga xamne ne buñ lekkee bala res ñu lekkat yar dana len dal fo len fek biir ba danaan deng nelaw dong lay bëgg boole kook nag du gàtt du gudd fan boole kook day gàtt aw fan lool loolu nag nit war naa wuuteeg rabi àll yi lu bari waaye loolaa ca raw lekk tëdd lekk tëdd fu mu jëm jiital koll bi ñu naan diw léegi kat mi ngi dund dundut daa feebar ndax wax yéen sa salaam du dañ <clears throat> ñu bari ne ab jullit kon jaaduwut mu fab biiram rek def ko yitteem def bànneexam rek fu bànneex ba jëm mu jëm fa kese kese déedéet ñu fàttaliku ne ñun ñii di ay nit li ñu indi woon fii ci kaw suuf dañ ñoo tere woon lu ñu lekk moo ñu fi indiwoon kon lekk yàgg naa jaaroon ñun fu ñu gën a dut يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الزجرة فتكونا من الظالمين جدًا بياق فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى إيه. <coughs> ورمخهم يقينا كفخ بموم سبير yu baax yépp dëgmal na la li feek yaa ngi moom sa biir sa biir moomu la Aïcha radiallahu anha nee na ba yonent bi ñëwee Madina ba nam fi bàyyi ko euh, mësuñoo saxal bis bu set ñu reer wala bis bu set ñu añ te moo ne ba ko Muhammad al Busayri di tagg tagg na ko waaye tagg na ko ci ñeme ab xiif te am loo lekk zalamtu sunnata man ahya dalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami wa shadda min saxabin ahya axsaahu wa thawa taxta alxijarati kashxan mutlaqa aladami وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم دانا خيف خيف خيف تي مون نكو نياك دال waaye la mu waxoon la doon jëmmal ba doj yi ñëw naa ko tey nga noo def wurus jaay nu ndax nga am loo lekk mun a jomb naa ko ku xas ba dégg inna fataxnaa laka fatahan mubinan li yaxfira laka allahu ma taqadama min danika wa ma taaxar wa yutima nicmatahu alayka wa yahdika sirata mustaqima jomb naa ko xiif ba daawut tee muy taxaw di julli ba tànk ya neew nu mu def buy julli te xiif day jël ay doj yu ñett ba mu jekk yu tolloog ay baljat nga xam ne bu ko defee fii mu yam ci kepp takk ko ba mu dëgër ba ba mu dëgër ba mën a taxaw rek di sa gëkk sikki soxnam suuf mas na koo wax ne radiallahu anha aïcha xanaa li yàlla wax ci miineel rek ak dëkk ku yàgg xanaa li yàlla wax da nga ko gëmatul léegi walla da nga ci sikki sàkk toppatu dara nga dëkkee dang-dang ji rek mu ne ko dama koy sant yàlla bokk yi kon xiif am na fukki yëf yoo xam ne lépp njariñ la waaye dañ ciy tënk lenn bokk yi ku ku kuy faral di xiifal boppam te am lum lekk xiif bu yam xiif bu yam mën naa leeral ab xolam lool lu mu bëgg a def ci jaamu yàlla mën koo def ndax day woyof tooy te du am genn wéradi waaye koo xam ne fu mu toll waxuma la suur waaye mi ngi regg regg regg kël loolu day muur ab xol day tayalloo aw yaram waaye bokk na ci ay njariñam day teewluloo nit sunu boroom ci sañ-sañam ndax lii mu nekk ba teg ko boppam am na ñoo xam ne yàlla leen ko teg te mënuñ ca dara kon du leen fàtte dana tee bew dana tee bew bew waaye dana tee it nit ki bañ a fàtte nattub suñu borom wax naa ko léegi ndax koo xam ne fu mu toll mi ngi regg di raayab kollam léegi tey mu fàtte ni xiif am na ak ñi xiifoon waaye it xiif am na lu muy jariñ ndax dana tee nelaw ku bëgg ba bari ku ku bañ a bari nelaw rek nay faral di xiifal boppam rawati nag guddi gi su boobaa jaam yàlla gu mu bëgg def mën na koo def ndax rekk naan gu bari moo cay topp te ku naan lu bari tàmbalee gëmmentu rawati mu nekk fu sedd te ku bari ay nelaw lu bari ci dundam dana dem donte nelaw mook ñun la yàlla boole waaye luy sabab nelaw la kooka su boobaa jërutuñu di ko limaale ci ñi nga xam ne dañuy jóg di tahajjud ci guddi gi wala ñuy def qiyamul layl waaye dana yombal lool nit ki taqoo akuk jaamu yalla gu nekk ndax lekk kat day dox diggante lekk gu bari day dox diggante nit ki ak jaamu yàlla gu bari ndax lay dox diggante nga moom day def saa su ne mi ngi lekk ta ba muy lekk muntas nekk ci yenn jaamu yalla yi nga xam di laaj fu mu toll mi ngi bu yoru lekk gu mag mu ngi yor lekk gu ndaw waaye bokk na ci njariñ yi xiif di waral xiif bu yam te mooy di lekk lu néew muy gaaw a rees wérug yaram gi tudd léegi moytu jàngoro yi ndax jàngoro ci boppam di lekk di sabab yenn yi day dox diggante nit ki jaamu yàlla ku wéri ku wéri di moom ku wérut mënut a jaamu yàlla waaye dana wàññi it ak ay fere fere yu bari lekk gu néew dana wàññi fere yu bari ndax li nit ñi soxla ñaari kilo liibar la cay soxla wala genn wala liibar mu doy ko sëkk waaye su boobaa itam mbokk yi lay des ca loolee muy sakkanal dana ca mën def li ñuy wax ithaar seet ñeneen ñu ko soxla mu soxla ko ni ñoom mu bàyyee leen ko te su boobaa ubbi na buntu saraxe dugg ca ak yoonu saraxe yoonu saraxe ne ku ko wàccu bu ëllëgee yàlla dana ko jalal la doon saraxe mu doon mu di ca keraw bis ba nga xam ne laa zilla illa zilluhu tabaraka wa taala kon boog yàlla nanu yàlla déggloo njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sunu borom dolli na ko fayal ndax képp koo xam ne lu muy nar a def nee na ana lu ci yonent bi boo xoon wala lu mu ci defoon du juum moom xam-xam yi bees yi ñooy ñëw ña ca xarala lool dem ba ci digg ñu ne ginnaaw lii ma ko waxoon kat nii ma ko waxoon noonu la demee te la ñuy jaar dugg ci lislaam kon boog ku ne ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne dalaa war a fekk si waaye waroo jéem a fekk kenn kon boog yàlla noonu yàlla defal dégg topp te di ñu wërsëgal ba faw yu teey te di ñu xiir ba faw it ñu di ko mën a bokk ak suñu moroomi jaam tam bañ ñoo yàqal suñu wér bañ mën koo jaamoo yàlla suñ bu mag bi daana wax ne eh, ku mu yaroon moo ko doon nettali di ko dund ba ñëpp xam ko ci moom kooka nee na dañoo doonoon ñu am yaram toll ni ñépp waaye ba ñu taxaw sa wayjur kaay leen wuyu kaay leen wàcc fi kaamil dem leen fee defi leen nangam nee na moom lañ topp ba tëluñoo naan tëluñoo lekk ba toll nit ñu toll kon boog la ñuy jëfandiku mu néew mu bari yàlla ñu yàlla xiir si jàmmoo ko ko yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril وسلم mbokk nena lumière décoration ngir sen chambre sen salon sen balcon liñ la si defal amul fenn waaye nag ay ventilation assortie de lustre ah xana nak mom li lu bess la dama ni tàq ay miroir sen salle de bain bu ngeen bëggee ay meuble de salle de bain si anam yu mucc ayib ay lavabo commode miroir led da ngay lal rek mu tàkk lii nag moo xarala dama ni du kenn kudul bâtiment plus import export évier si mbooleem xeet waaye nag baignoire deux personnes ba ci une personne mbooleem xeetu robinet ngir sen salle de bain ngir sen kër sen waañ fépp dal ci biir kër gi robinet yi yemb na waaye nag réservoir 5000 litres ba 500 litres tànn sa bu la neex lay doon bu ngeen bëggee nag peinture jàppaleen ni ñooy le numéro un des peintures peinture canadien ya gën a gën a gën baax loolu ngeen di peinture avec étanchéité bâtiment plus ni moom la ñëpp di wër ndaxte li leen indil si ay matériels yu xarala nee naa la suñu ventilation ci mbooleem marque am na nañu ay Windy 90 ay Coulomb Tom Coulomb Tom 140 120 ak yeneen xeetu produit ay cabine de douche chauffe-eau yi nag waaye nag ba ci gën a neex mooy critique léegi la ndox même pas une minute ah mbokki Sénégal mbokki Touba ñoo ngi leen ngeen découvrir bâtiment plus import si Touba ñoo ngi si Daaru Khodous jàkkaarloog marché bi bu ngeen fi accès jàppaleen lépp luy carreau sanitaire lumière peinture duñ ca morom bolé ko nak mbokk yombu yomb tax bâtiment plus import export notre force c'est la qualité ah, man bi majidil majidil xasmia ah. wajal bi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 77 532 37 28 le numéro de compte bancaire banque islamique maudit SN 019.01 01 10 110 point 25 104 477 40 02.32. 32 salaamu alaikum wa rahmatullah